comme élément de base l'école nationale supérieure de performance des moteurs qui s'appelle maintenant IFP mais aussi avec tout ensemble d'entités, de prestations telles le, le BESIC, euh, mais aussi techniques qui, font des brevets, qui travaillent sur toute la chaîne d'amont en aval des hydrocarbures. Bon, je moment où le Sénégal a des nous avons besoin plus que jamais d'une bonne expertise pour euh, accompagner cette nouvelle orientation de notre pays. Euh, nous avons besoin de ressources de qualité dans tous les secteurs et ce sont des secteurs complexes. Donc nous allons bâtir des, des, une coopération certainement avec l'IFP à travers ces, démembrements. Et nous allons, à travers l'Institut national du pétrole et du gaz, qui sera institué au Sénégal, développer des, des Quelle sera la porte c'est une visite euh, qui a été extrêmement bien organisée par euh, euh le gouvernement français, euh, l'État français, je dirais, parce que c'est une visite d'État. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au président François Hollande pour l'amitié et la considération dont il a fait montre l'amitié aussi pour renforcer la coopération déjà excellente entre la France et le Sénégal. J'ai pu rencontrer l'ensemble des autorités, des institutions, le, le, le président de la République lui-même, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Madame la maire de Paris. Donc pour le volet institutionnel, j'ai aussi visité des entreprises, notamment l'entreprise Alstom qui va développer le train. express régional, j'ai pu aussi avoir une euh, académique avec, j'ai été fait docteur honoris au Conservatoire national des arts et J'ai aussi été admis à l'Académie des sciences doutre euh, et tout à l'heure, je, suis à l'Institut français du pétrole pour amorcer la coopération. Au total, donc, euh, c'est une visite réussie Bien sûr, beaucoup d'accords ont été signés et ces accords permettront d'organiser le cadre d'intervention. Nous avons par exemple des accords dans le domaine de l'écologie, de l'économie d'énergie euh, de l'énergie du Sénégal. Nous avons des accords avec euh, Bercy sur les mécanismes de financement innovants pour nous accompagner et vous savez que, la compris la France reste notre premier économique, financier. Donc euh, sur toutes ces questions et sur d'autres, vraiment le cadre a été balisé pour euh, renforcer la relation. Monsieur le Président mais attendez ci wolof ci wolof jërëjëf euh, ñu ngi fii ci njeexitalu visite d'état bi ma amaloon ci France nekk bu am solo gisoon ngeen seen bopp ni nga xam ne noonu la France teroo lépp loo xam ne teranga la ak dalal gan wane nañ ko ci fànn bu nekk euh, muy firnde rek diggante France ak Sénégal lu yàgg la waaye liñ ci mën a jàpp mooy li nga xam ne mooy li ñu jëmale kanam déjà président Hollande ba mu moom ci reer bu ñu dalal joxaat na ma archive yoo xam ne ba tey Sénégal mosu ko woon am Afrique mosu ko woon am ci wàllu wane na itam taxawaayam ngir jox yombal nationalité tirailleurs yooyu wala seen i njaboot euh, ngir ñu mën a am nationalité française bu fekkee lu ñu soxla la mais aussi devoir de mémoire boobu tax na ñun suñu jëmm bopp daañu taxawal une maison des archives muy lépp loo xam ne ay këyit la ay film ak lépp lu jëm ci histoire tirailleurs yi daañu ko gën a feddali ndax nit bu fàtte démb hmm. te dañu am devoir de mémoire hmm. waaye visite bi wane na plan Sénégal émergent mu ngi ci yoon xam nañu fi ñu jëm euh, te bëgg nañu itam lépp lu am tey ci àdduna bi ci lu gën a baax ñu mën ko indi Sénégal te lu mën a nekk la donc dañu war a continuer liggéey euh, continuer ngir fonk sunu bëgg-bëggu réew te itam lëkkaloo ak ñi nga xam ne mën nañu si jàppale xam-xam nag mooy li jiite àdduna bi moo tax volet xam-xam bi dafa am solo fii ñu nekk loolu lañ bëgg a jiital wàllu pétrole ak gaz boo amul xam-xam dañ lay nax jël li si sa biir réew doo ci am tar loolu tax ma insister pour ñu taxawal kuréel goo xam ne dañ ko tuddee COS muy comité d'orientation stratégique ci wàllu pétrole bi ak gaz bi ngir ñuy saytu naka la ñu war a doxee yan anam la ñu war a am ngir ëllëg bu ñu saytoo ba pare kenn duñu nax ci contrat yi kenn duñu nax si ni ñu exploité te doomu réew mi daañu am ay xam-xam euh, fekk naa fi benn xale bu jigéen buy jàng actuellement ci IEF school euh, waaye waaye yëmbal na ci kaw Malika loolu daf ma nekk lool <laughs> te dañu war a former suñu doomu réew yëpp ci domaine yooyu nga xam ne même compagnie yi ñëw dañu am intérêt jël si ñoom donc loolu aussi mooy li ñuy waajal fi mu toll nii ngir taxawal institut du pétrole et du gaz waaye itam kuréel googu ñu tuddee COS ñu man ko yaatal ba nga xam ne Sénégal daal dana am euh, intérêt bu mag a mag ci li muy def. monsieur le président dellu daal ci sant France ak président de la République française foofu la gouvernement vous êtes attendu à Genève au mois de mars monsieur le président de la République. oui oui tout à fait. Quel... Merci. Merci.